shahru ramadan moo bari ngëneel ci weeru koor gi shahru ramadan moo bari ngëneel a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim alhamdulillahi haqqa hamdihi wasalaatu wasalaamu ala xayri xalqihi wa safwati xalqihi wa xiirati xalqih maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ixwaani fillah ahbab almustapha assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi ginnaaw ba nu musuloo ci cheytaan ak bakkan tàmbali sunu wax ak sunu jëf yëpp ci turu yàlla ñu sant buur yàlla subhaanahu wa taala moom mi nu wërsëgal weeru koor julli ci seyduna muhammad mi nu jàngal naka lañu ñu war jëfandikoo ak naka lañu ñu war a doxale sunu wàllu jaamu yàlla rawatina ci bii ñu toll mu di sawmu ramadan waaye di ñaanal saxaabaam yu tedd ya ak ña topp ca ñoom ba yëf yi si ci ñun di ñaanal sunu di la ñaanal sunu borom euh, yokk seen ay leer te taas ñun ci seeni barke yàlla di leen dolli njëgal ak yërmande ba keroog ñu leen di fekki ci barke sayyiduna muhammad o bi xurmati chehru ramadan al mubarak bu ko defee mbokk yi ñu ngi tolloon ak yéen démb ci tomb bu am solo mu di yërmande yàlla ak njëggalu sunu borom lan ban code part la ñu ci amoon lan la ci yàlla defal ñun en tant que xeetu sayduna muhammad xam naa ni fa tey dañuy ubbi beneen bunt boo xam ni ba tey dafay aju ci ngëneel yi nu yàlla defal ak promo bi ñu yàlla defal ci biir fukki fan yi ci digg bi nga xam ni ci la yàlla di def méga promo bu ñuy wax njéggal fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin tey ñu fas yéene waxtaane tomb bu am solo mooy ñaata façon jéggalu yàlla moo am jullit bi ñaata façon buntu la am pour jaar ci jéggalu boroomam fa tabaarakallaahu liñ ciy njëkk jàngat mbokk yi di leen ko bàyyiloo xel moo di jullit bi war naa xam ni moytu bàkkaar moo ëpp ci moom tuyaaba muy def euh, lu koy jural tuyaaba maanaam moytu bàkkaar moo gën wut tuyaaba parce que moytu bàkkaar bi day wëlbatiku nekk wut yiw parce que li feek yaa ngi moytu yàlla tere yëgal ni yaa ngi am yiw li ñuy bañ mooy am ndaa toj ndaa jullit war na fu mu toll rek yiwam di yokku ay bakkaaram di néew ah donte nag kullu bnu aadama xataa'un waaye xayru xataa'iina at-tawaab sidna Muhammad nee doomu aadama boo gis rek day def erreur doomu aadama boo gis rek mën naa tooñ boroomam ndax matadi waaye ñi tooñ ñi bakkaar yonent bi nee na mooy tuubaakoon yi mooy ñi nga xam ni dañu gaaw ci tuubal seen borom yàlla wax ci alquran ni ñii tuub maa leen bëgg inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin yàlla subhanahu wa taala nee na ñaar dama leen a bëgg dama bëgg kuy tuub di dellu si ci man loo taq taq taq bul yaakaar ni bàkkaar rëye na ci àddina te duma ko jéggale bokkaale gën a rëy ci bokk ci ci bàkkaar yi te boo taxawee ci kanamu yonent bi baa nga taxaw ci kanamu ki lay tuubal ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah lu bàkkaar ba rëyoon rëy rëy yàlla toppatu la dara ba noppi nag du ca yem jël bàkkaar yi soppi ko ay yiw bind ko si téere jëf waaye yàllaa bëri njëgal mbokk yi yàllaa bëri yërmande yàllaa bëgg xeetu sayduna muhammad moo mbokk yi ñu ngi leen di soññ di soññ suñu bopp weerukoor dafa ñëw pour jàngal ñu melokaan wi ñu war a mel ci moytu lépp luy bàkkaar parce que ku tudd njéggal tudd bàkkaar ku tudd jéllal tudd bàkkaar te mbokk yi bàkkaar yooyu di waral ñu war a jéggalu suñu borom ñu yëg ni judduwaale wuñ ko dañ ko màggaale sunu environnement di nu ci yar ndax bàkkaar boo ci jël jikko la waaye tuyaaba boo ci jël jikko la imma mu doon wasfin hamidin wala mu doon wasfin zamimin ma koy lu jar a bàyyi xelam ko faral di wax waxtaan ni amul benn liir bu ngeen mës a gis mu dend ak moroomu liiram di jëw seen mbokkum liir mosoo koo gis loolu moom bi man man man Mouhamed Diouf gisaguma ko liir bu góor bu dend ak seexam liir bu jigéen beneen liir gane si ci kër gi ñoom ñaari liir yi di jëw liir be déet gisaguma ko mag yu ne léng ñooy toog dend di jëw seen mbokkum jullit kon judduwaale woo ko bi ngay judd da nga ci fitra laab set sell waaw laab set sell ci ruu ak ci jëmm noonu la ñu bëggee mbokk yi booy dellu sa borom nga set wicc ci bàkkaar set wicc ci bàkkaar moo tax sunu boroom ni comme xam naa ni dangeen ngeen may tooñ jamono bu ne waaw fa qultu staghfiru rabbakum ndax moom yàlla innahu kaana ghafaara faaw rek ngeen di sàkku njëgal ci yàlla ndax moom mooy jéggalaakoonu bàkkaar yu yu bëri bàkkaar yu bëri da koy jéggale moom yàlla moo tax mbokk yi bokk na ci tey ku tudd tilim tudd fóot ku tudd tilim tudd fóot te ku tudd fóot tudd saabu mbaa omo mbaa eau de javel ni nga xamee façon omo yeeg eau de javel yeeg saabu yi Mansour ñoom fàbbak sookilin dem si yàlla si léegi ma daara xew ak ak kii kotool ndem si yàlla si moom tamit jamonoy 90 la woon <laughs> saabu marabu fanikoo ñooñu ñooñu ana ñu Mansour day day dem si yàlla yooyu maanaam eh, eh, ñoom per savon ñoom mon savon maanaam xeetu détergent bu ne xeetu saabu bu ne andil nañu ko xaw ma nag jamono ji bana teg tànk jàpp ma ko nag man xam nga démb laa man man ca mag ña laa xam nga ne faab gisatoo ko fenn faab yaa yàlla yërëm leen laa ilaha illallah lu ma sa xew dana xew yi ba mu des yàlla kullu man alayha fani noonu <coughs> xeetu euh, détergent yi bare noonu xeetu saabu yi bare noonu la xeetu istixfaar yi bare istixfaar ci boppam dafa bëri ay catégorie buñ ci duggoon rek nga xam ni istixfaar yi bari nañu am na bu ñuy wax sayyidul istixfaar amaan na daan ko defal émission boppam am na istixfaar simple bi ñuy wax astaghfirullah façon la bu ñuy jéggaloo yàlla am na façon bu ñuy wax astaghfirullah al azim istixfaar la am na façon istixfaar bu ñuy wax astaghfirullah al azim alladi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum istixfaar la ah nga xam ni tabaarakallahu dara ëpp ko doole ci istixfaar yi rawatina nag ah nga nga nga jëlee ko ci waa kër na na Ahmad Tidiane istixfaar azim bi sigatil xayil qayum ah am na ñoo xam ni duñ ca yam astaghfirullah al azim alladi la ilaha illa huwa al xayul qayum wa atubu ilayhi ah dañuy jéggalu yàlla miy jéggale ba noppi ne ko nag yàlla ñu ngi lay tuubal nag am na ñu wax ni waaw googu waaw xasam la am na ñu ne waaw atfu la waaw ni ko jàppee waawu xasam ni yàlla ñu ngi lay giñal ni wallahi ñu ngi lay tuubal am ñu ne déedéet ginnaaw ban la jégaloo boole nañ ci ak tuub wa atuubu ilayhi ñu ngi lay tuubaaleel ginnaaw bañ la jégaloo waaye ñaar yëpp responsabilité la ñaar yëpp responsabilité la kon bu ko defee mbokk yi istixfaar benn la ci façon jég jégalu sunu borom benn la ci mukaffiraatu dunub bi yii far bàkkaar di ci raxas nit ba mu set istixfaar ci la bokk moo ci gën a jege waaye mbokk yi naa la jox beneen salaatu ala nabi weeru koor gi profité ci chaque jour boo mënee am 1947 astaghfirullah def ko mooy limam yàlla dana la raxas dana faj sa aajo dina dina defar sa ruu dina la xëccalum koom ngeen jënd ko guro weer wee sore waaye salaatu ala nabi moom itam róolu istixfaar la am duubul sax nag waxuma defar gi muy defar sa ruu waxuma tuyaaba ji waxuma dolli gi muy dolli sa cofeel ci yonent bi waaye dafa bokk ci yii far bàkkaar di julli ci yonent bi lu bari ah nga julli ci moom benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon nga julli ci moom fukki yoon yàlla julli ci yow téeméeri yoon nga julli ci moom téeméeri yoon yàlla julli ci yow junni yoon nga julli ci moom junni yoon yàlla subhaanahu wa taala ne du ma lakk jëmm jooju ndax jëmm jooju laap na ci bàkkaar beneen beneen beneen waaye Mansour bokk na ci far bàkkaaru jàmm bi di julli inna salaata tanhee anil fahshaa'i wal munkar waxuma day far bàkkaar sax waaye dalay tere nga def bàkkaar faf <laughs> kon ñii jullitee bàkkaar nañ xam ni seen julli gi rax na <laughs> mais julli dëgg julli dëgg moom dangay julli dafay nekk sa tata dalay baare sa digganteeg lu bon ak lu ñu sib mbokk yi ci gàttal ma tënkal la santaane boo dégg yàlla santaane ko ci alquran santaane bu yonent bi santaane nga koy jëf ak faruk bàkkaar a ngi ci waaye ak wutukaay yu yiw ngi ci fi may daanale sama kàddu mooy nanu moytu bàkkaar yii effacé suñ tuyaaba yi te baril tuyaaba yi effacé suñ bàkkaar yi xayril alamina nee na ittaqillaha xaythu ma kunt yow jullit bi ragalal yàlla foo mën a ne ak période boo mën a ne ñu ngi ci weeru koor ci fukki fanu njéggal yaa ngi yaa ngi góorgóorlu pour bàyyi benn xeetu mooy waa góorgóorlu waaleel bàyyi yëpp ragalal yàlla ci sa koor gi ragalal yàlla ci période koor gi waaye ragalal yàlla ci période budul période koor gi ndax nga mucc ci bàkkaar yi wa atbii sayyi'ata alxasanata tamxuha seyduna muhammad nee na na nga toftale say jëf yu ñaaw nga toftal ci ay jëf yu rafet parce que jëf ju baax fu mu fekk bakkaar da koy far waaye am na ci bakkaar yi yoo xam ni day war a redémarrer mooy kabaa'ir yi ah jot bi may woon dana am ay émission yoo xam ni yooyu rek lañ koy jagale lan mooy kabaa'ir yi bakkaar yu mag yi yan mooy bakaar yu ndaw yi ak yan mooy yiw yu mag yi jar na xam mbokk yi jar xam jar na xam yonent bi nee na saa yoo defee bàkkaar fexeel def ca teg ca jëf ju baax mu far bàkkaar bi ah tableau craie éponge ginnaaw ba ñun sunu tableau foo ko fekkee day takk waaw nanu wut lu ko effacé nag bokk na ci li koy effacé bàkkaar yi julli ci yenent bi istixfaar jàng alquran ak ci gàttal mbooleem looy jaamoo yàlla farug bàkkaar a ngi ci biir yenent bi lan la tëje bi waaye nag wa xaaliqin naasa bi xuluqin xasanin bokk na ci lay may nga mën a dëkk ak nit ñi dëkku jàmm bokk na ci lay may nga am jàmm am salaam am yiw yàlla di la bindal yiw ci nit ñi àqu nit ñi du la topp mooy lan nga jëflanteeg nit ñi ci jëflante bu rafet jikko bu rafet kon nag mbokk yi ñu teg foofu sunu baaraam fa tabaarakallaahu ñu ngi ak yéen ba léegi ci ngëneelu méga promo bi ñu yonent bi andil mu di al maghfiratu wal xufraan awil xufraan yàlla ñu yàlla boole defal njéggal ñu gën a góorgóorlu ci koor gi incha allahu taala balaa koor gi jeex ñu am euh, ngërmande yàlla balaa koor gi jeex ñu am yërmande yàlla waaye balaa koor gi jeex ñu am njéggalu yàlla waaye balaa koor jeex suñu yaram aram safara bu ko defee tabaarakallahu ñu ngi leen dox dig daje suba incha allahu ci waxtu wi euh, wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim lu wóom le wóom le bàyyi ko gannaaw lu néew le néew le bàyyi ko gannaaw